d'abord damooy kontaan comme ñëpp parce que yàgg nañu toog xalaat ni cees département de Thiès président Macky Sall mënu ko gañ yàlla def na ni tey gañe nañ ko dañ ci war a kontaan damay encourager aussi sama frère yi nga xam ni dañu dëkk cees xëy na ki ñu koy dajal mbër la nag wax dëgg yàlla mais à chaque élection ñoom ñu ngi xëcc xëcc xëcc jëm ci kaw bu ñu yàggee xëcc rek incha allah rabbi dinañu dem ba li ñu bëgg cees dinañ ko am bi loolu weesee am na loo xam ni résultat bi buñ ci yemee ci analyse te waxuñu ko dafay mel ni nit dafa am benn mérite ñu di ko ko xeebal élection locale yi passé bu ñu demee ba gañewuñu département bi Idrissa Seck rawuñu fi tuuti c'est parce que on avait perdu l'axe Kër Moussa Diender et Kayar Kër Moussa Diender et Kayar ñoom ñëpp PDS ñoo ko gañewoon waaw yàlla def na ci référendum bi Euh, Momar Ciss bu Kër Moussa le maire Ndiassé Ka bu Kayar ñëw nañu jàppale président Macky Sall je crois que ce serait plus juste de de le dire xam ni ñi seen ñëw moo tax yëf yi yokk ba ñu am différence bi ñu war a am suñu diggante ak Idrissa Seck donc loolu du du wàññiwul ci meritu kenn dara waaye dina tax nag aussi ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci seen gannaaw ah dinañu xam ne ñii li ñu def ñii ñu ko defal ak ñii ñu ko sexal yëg nañ ko ci seen yaram ba souligné ko beneen bi dina tax aussi ñi nga xam ni ñu ngi insité encore ñëwaguñu jàpp naa ne ñooñu dinañu war a mën a sawar ngën a ñëw jàppale président Macky parce que département de Thiès dama ko mës a wax du affaire gént pouvoir la ñu nekk pouvoir soo ko yoree da ngay seet nit ñi seen soxla nga dem fekk leen si soo demee jandeer tey depuis deux ans man mënoon naa ni ñàkk nañu élection yi rek nañu toog mais man waxoon naa ci campagne bi ñun suñu gañee dinañu jëf suñu ñàkkee dinañu jëf maire bi ñu fi fal tey depuis ñaari at mooy le maire de Diender Alassane Ndoye soo ko déggee fu muy wax rek wax ju ñaaw ci président Macky Sall président Macky Sall jox na ma juróom mbenn fukki million ma rejeté ko faalewu ko du ma ànd ak kuy def promotion góor jigéen du ànd ak kuy nangu suufu Diender loolu la fa doon wax loolu la doon campagne te du dëgg président Macky Sall <laughs> mënu ko jox ay 60 millions pour nekkoon kay jàppale ma amul donc waxam ci loolu la nekkoon un maire dañ la ni yow bi nga fi toogee ba léegi lan nga fi def loolu lañ lay laaj te defu ko amul benn bilan boo xam ni mën na ko présenter donc wax bu ñaaw boobu mu doon wax pour jéem a tuutal wala yëkkatil boppam daraja loolu la waa Jandeer rejeté parce que xam nga waa Jandeer lu ñu wax ñun depuis 2012. tali bii nga xam ne boo jógee kilomètre cinquante ba Kayar wala nga jóge Sangalkam nga dem ba Mboro fii bu ñu daan ñëw jandeer dañ koy hésité waat di ko xoolaat tali bii lépp dafa nooy président Macky Sall moo ko fi def waa jandeer xam nga lu ñuy wax ñaari dëkk moo ñu desee ci courant fii yëpp dafa daan lëndam président Macky Sall moo ko fi def boo demee dëkk bu ñuy wax ca dem sa wala nga dem Bissau wala nga dem Kër Moussa astafirullah Kër Matar Yadd ñooñu 35 ans gi nii ndox ndox eau potable dañ ko daan dégg wala ñu dem ci yeneen dëkk def fukki kilomètres yi ko dem président Macky Sall may nañu doole may nañu mën-mën jàppale ñu ba ñu équiper forage yëpp def ko aujourd'hui am nañu ay projet ak SONES pour Bayax pour Daara pour Beer ca laan ñu defar leen ndox eau potable ñu di ko naan loolu mooy suñuy problème jigéen ñi jàppale nañ leen ci financement bi mbalit bi incha allah bi avec le ministère de la gouvernance locale jàppale nañ ci jàppale boo xam ne dina ñëw lépp luy mbalit ñu jëlee loolu la population yu la woon président Macky Sall jàppale nañ ñu di ko def te dinañ ko continuer donc bu ñu toogee tey ba yegg foofu ah bu ñuy analyser ñuy fàtte ñooñu seen apport biñ ci def dafa am leen lu muy nëral solidarité nag dinaa ci wax parce que man li ma yëg ni solidarité la ñu di ko waxtaanee fii. man yëguma ko solidarité ci parti bi gisuma ko solidarité ci au sommet de l'État ay yenn ministre di daw di topp le maire Alassane di ko jàppale ci suuf alors que yéen seen ki ngeen jàpp kenn àndal bokk moom parti bi mu ngi fi mais defuñu ko di ko wër di ko topp mu dem mu am na ñu bari sax da leen xaw a ñàkkal fayda alors que effort yi ñu doon def pour jëli Alassane Ndoye le tiers wala la moitié bu ñu ko defoon dooleel ma ko ñu gën a dem mais yàlla sunu borom atte nañu topp nañ ci moom ba cëkk ñu ci bari seet si nañu ma woo nañu ma ne ma dañoo bëgg ñu ànd ak maire bi parce que ñun ragal nañ ñu maire bi su ñëwul du ñu gañ loolu nag ñàkk ngëm yàlla mënu ko paase ñàkk wóolu li fi président Macky Sall def mënu ko paase man. ci ñaari mbir laa tegoon ci li ma xalaat ni ñi ma àndal war nañu mën a jël jandeer delloo ko président Macky li ci jiitu mooy liggéey boo xam ni président Macky Sall permettre nañ ko jàppale ñu may ñu ñu def ko bi ci topp mooy dénk suñu borom lépp te jusqu'à aujourd'hui alhamdulilah résultat yi rek moo mën a xool moo ñu mën a wan ndax li ñu doon def baax na wala baaxul comme résultat yi baax na nag sant yàlla dinañu ko continuer sunu liggéey bi ñu doon def législative yi ñëw dinañ ci continuer présidentielle dinañ ci continuer def ci loo xam ne dinañ ko war a def ba li président Macky Sall mbébét mu jëm ci jandeer waa jandeer xaar ko ci président Macky Sall incha allah rabbi loolu pare nañu pour def ko encore une fois voilà.